barkib Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul barkib Mame Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baol Mouridine mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy topp seen chaîne bi di Khidma 28 teve mooy télé bi leen di toppal tànki sëriñ bi tey jii nag ñu ngi fii ci jannatul maxwa waaye mu am particularité muy fi ñuy wax bay Fall ga te ñëpp gën koo miine ci tur woowu ci bis boo xam ne moo tolloo fukki fan ak juróom-ñaar ci rabiul awal di di weeru gàmmu di bis bi Cheikh Ibrahima Fall laqee ngërëm ci ku baax ki loolu nag ñu koy màggal fii ay sëtam yu tedd tàmbale ko ci xalifa bi ñu fekk ko fi muy sëñ di euh, ñu koy ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér ñu ngi fii nag ci daaree Jazbul murit di daaree Maam Cheikh Ibrahima dañuy jox suñ mbokkum taalibe mii ñuy janool muy sëñ Fallou Ndiaye bu ko defee moom euh, mu def ab introduction ci jëmmam bu noppee soobu ci sëriñ bi xamle xamle kan lañ fa yéene seqal waxtaan wi bu ko defee ñu soog a soobu ci lef wi kon sëñ Fallou bismillah axasbillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha allazina amanu hal adlukum ala tijarati tunjikum min asabina limin tuminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum xayrun lakum in kuntum taxlamuun kon mbokki murid ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaaraat bu baax a baax a baax yéen waa Xitma 28 TV ñu ngi leen di siyaare bu baax di rafetlu teewaay bi fii ci jotaay bi bis bii nag day bis boo xam ne daa mat a teew rawatina it ku yëngu ci loo xam ne dafay yaatal nit ñi di ci teg seen bët muy jamono joo xam ne loolu day am solo lool ci barab yu mel nii barab bi nag li tax ñëw fi am solo mooy bis bi ndax bis bi daa waral lépp bis bi ci la Cheikh Ibrahima fa Lamp Baabul Muridiina amoon ngërëmal sëriñ bi waaye nag bi ñetteelu ngërëm kon moo tax ñëw fi day daal di am solo lool bu nu waxee ñetteelu ngërëmit sëriñ bi am na ay yooni yoon yum ko jot a gërëm waaye nag day far dañuy faral di wax ne ñetti at la taqoog sëriñ bi taqoo maanaam moom la nekk ak sëriñ bi sëriñ bi gërëm ko kon moo tax bis bi teew fi day daal am solo waaye nag ngeen ñëw ci daara Jazbul Murid daara ji di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina ñoom ñoo ko taxawal fii ci jannatu muy daara ju am solo joo xam ne lu mat a bàyyi xel waaye ngeen fekk fi sëriñ Modou Fall moom sëñam di Yaasin ñoom ñooy taxaw daara ji muy moom moo jiite daara Jazbul Murid kon moom ngeen fekk ni muy sëriñ Modou Fall moom sëñam di Yaasin di ko siyaar bu baax di ko ñaanal sunu borom dolli ko kàttan dolli ko tawféex ta yàggal ko fi bu baax a baax te di ko ñaanal liggéey bi lim ci bëgg moom moo ko xam na ko sun boroom taxawal noonu dëgëral ko ci te kattanal ko ci bu baax a baax a baax man mii di wax génn it maa ngi tudd fàllu Fallou Ndiaye Baye Fall Touba 28 kon ñu ngi leen di siyaare bu baax tey rafetlu teewaay bi bu baax a baax a baax jërëjëf. macha allah sëñ Fallou waxtaan wi ni nga ko am na solo tegu ci ak dal tegu na ci xam tegu na ci kon ñu fas yéene rek dugg ci li nga xam ne moo ñu fi bokk dajale ñun ñëpp muy taataan si luy tax taalibe bu nekk fa nga nekk nga mën a yëg ne Cheikh Ibrahima Fall jariñ na la ci bis bi boo ko yëgee ak boo ko yëgul alhamdulilah ñun bi ñu ko yëgee kon sëñ bi dañ lay daal di jëbal kàddu gi bu ko defee ñu soobu ci waxtaan wi dañ koy sofale ak ab laaj nag laaj bi mooy barab bi ngeen taxawal mu jës Jazboul Mouride ci ban jamono ngeen ko taxawal ak ci lan ndigal moo tax ngeen taxawal ko ñu sooboo loolu ci waxtaan wi bisimilah. ahousubillah mina seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi eh, maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax waa xidma 28 maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax bi ñaan suñ borom defal leen jàmm te seen jumtuwaay yi nga xam ne fas ngeen ko yéenee liggéeyal sëriñ bi suñu borom defal leen sulu yi seen njor fu ñuy dégg bépp jumtukaay bu mën a doon buy jàllale ay wax wala ay ay ay jëf suñu borom defal leen ngeen bokk ci ñi gën a kawe ci barke murid bu mag ba di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, sëñ am di fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Baawul Muridina ak mboolem njabootu Serigne Touba gi ak maam Cheikh euh, di sant baax sëñ Fallou ci kàddu yi sëñ Ndiaye ñu ngi lay sant bu baax a baax sëñ Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay sant bu baax a baax ak murid yi nga àndal te di leen jaajëfal ci taxawaay bi euh, di ñaana suñu jàmbaar ju baax ji nag sëñ Cheikh Jëmb Fall suñu borom subhaanahu wa taala doolu ñu ko fayal euh, ndax ak ak kilifa bu baax gi nga xam ne moo doon taxaw bis bii muy sëñ Basiiru Faal alxuraan di jàmbaar lool wax dëgg yàlla te dara ñor ko woon lu dul maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muriidiina di ko ñaanal ki nga xam ne moo ko mujj wuutu euh, sëñ Bada euh, yàlla suñu borom doolu yërmaane bu baax ci dënnam am mboolem ñam fekk ak ña fay fekk ndax barab bii sëñ Cheikh jëm moo nu ko jox Euh, xam naa naal bu fi sëñ Modou Aminta bàyyi woon la ndax euh, dëkkuwaay bokk na ci li nga xam ne mënu caa ñàkk muy ab jànguwaay ak jaayuwaay ak fajuwaay te ñett yooyu yëpp sëñ Modou Aminta bi muy natt barab bi génne woon na ko te barab bi muy faju muy jàngukaay bi nga xam ne sëriñ bi génne na ko sëriñ see jëmm teg ko suñuy loxo ñu di ko ñaanal suñu borom doole lañu ko fayal liñ fi def nag mooy jàng alxuraan ak jàngale alxuraan Euh, la sëriñ bi waxoon Cheikh Ibra waxoon ne fu ba ba ñuy lem dénd ba fu sëñ Bàmba samp mbër ma samp mbër ca wet ga loolu nag day feeñ ci ay xalifaam day feeñ ci jëf jëpp yu mu mën a doon ci jëf Cheikh Ibra ndax da gis ne màggal gi sax boo dee nattale màggalu Tuubaa bi muy waaj a jub si ba jege lool day mel ne am na taw bu wàccoon màggalu maam Cheikh Ibrahima Fall gi tamit bi muy ñëw ba jege lool day mel ne suñu borom wàccewaat na ay xéwal te xéwal yooyu yëpp liñ ci liñ liñ ci liñ ko jàppee mooy balaa bi ñuy dégg ci réew mi ak ak nattu yi ak jafe-jafe yi jàpp nañ ne euh, xew lii di wàccee ko koy yóbbaale euh, ci suñu ci suñu ci suñu njort lu rafet ndax euh, sëriñ bi ñaan na ko te ñaanu mun Muntaxa gee jàll kenn ku ci nekk am nga ci xel mu daal te gis nañ ci teg nañ suñu bët ci lii nga xam ne mooy xew ci àdduna bi kon nag ñoo ngi ñaan suñu borom dolli ñoo defal tawfeex daara ji nag mooy daara alxuraanu karim dañ fiy jàngale di fi yare ndax sëriñ bi ne waxoon na ne lenn rek mooy sama cat ñàkk toog Touba di fa jàngal alxuraan ku ko def lépp loo bëgg dinaa la ko defal te Cheikh Ibra Fall la mu waxoon ne ba ñu lem déen sëñ Bàmba samp mbër ma samp mbër ci wér ga bu ñu xoolee ne université Serigne Touba bii ci penku bi bi mooy université Maam Cheikh Ibrahima Fall ci sow bi te ki ki ki nga xam ne moo yeesalaat université bi mu sëñ Muntaxa moo teg si woon xeer wi ci daara Maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag loolu am xel da ciy gën a dal bu baax a baax ndax Cheikh Ibra ay jëfam waxtu wu nekk foo ko làmb da koy daj ci anam yëpp ndax jëfam moom nëbbuwut suuluwut ku làmb daj ko ku xool gis ku déglu dégg kon nag kooku dañuy ñaan suñu borom dool ñu ko fayal jàng alxuraan nag baax na lool waaye la ci ëpp solo mooy mu ab yar gunge ko ndax nit boo ko jàngalee te yoroo ko day mel ne euh, lu mu yàqu lu ne yàqu ca dimbali te ku amum njàng te yoruwut kooku mën naa tukkal am réew ndax lu ko waral mooy waxtu wu nekk day jàng ne diw nee na diw nee na ba téere booba jeex nga jàngaat ne diw noonu diw nee na ba téere booba jeex te ñooñu ñu lay nettali ne la ñoo wax lii ñooñu ay seen expérience seen xam-xam dafa dafa jéggi dayoo ci xam àdduna ak xam ëllëg moo tax koo jàngal te yoroo ko lim mën a yàq dafa bëri moo tax sëriñ bi doon wax naan euh, maa ngi leen di dénk ci ngeen am xam-xam waaye xam-xam bi la koy war a gunge mooy ab yar ndax maa ngi leen di xamal ne xam-xam lu mu bëri bëri te àndatu ko ab yar day di nit ki jëme ko ci coono ak ay ay jafe-jafe fa kasratul xilmi bi xayril adabi jaalibatun ilal asa wa temps bi kon loolu mooy li nga xam ne moo waral sëriñ bi joxoon ngir ñu taxawu daara ji ak di ko saytu ak di ko topp te sëriñ Tuubaa waxoon nañu ne su fekkee ne ragal ngeen gàcca bala ngeen di def dara na ngeen fexe ba xam la ngeen di def loolu nag jëm na ci jàng alxuraan jëm na ci mépp métier mu mën a doon képp kuñ koy jox boo ci amul xam la ci ëpp solo mooy nga delloo ko ndax kii nga xam ne moo yor euh, film bi yaakaar naa bi ñu film jàpp nañu da ci am xam-xam moo tax mu ko waaye ku ma ko def woon man mii lii muy def mënuma ko kon nag nit ki lépp lu muy def wala mu cay dugg na fexe ba am ci xam-xam ndax boo ko xam-xam gungewul loola mën na caa am ay jafe-jafe gone gi nag boo ko jàngalee nag la ci ëpp solo nag nga fexe ba ah, yar ko ndax euh, man mu baax mu ñuy wax Sëñ Bay Jaxate dafa waxoon ne amub yaray tax ñu jël nit foog ko teg ko ca kaw ñàkkub yaray tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw daan ne ab yar li tax amul moroom day tax nga gën fa say moroom day tax nga gën fa sa borom ku la yëru rekk la nax daan ne ku la mayoon junni it te jàppalu bi yar may la yit léegi nga gis junni yarat boroomu bi yar faru ko sex ab yar la dee fi gën nit ab yar la dee fi rawe nit ab yar la dee fi sute nit ne du alal ak rëyi yax ndax juddu bu rëy mut la ndamoo ragal yàlla moo mat te ku ko am sax du ko ndamoo ngir dootu gis baaxam nga sax loolu wax na ci lu bare bare loo xam ne muy ab yar kon la ci ëpp solo mooy xale yi dañ leen di jàngal boo leen ak yar leen bañ nekk ay murit yu murite te mooy murit ba nga xam ne moom la sëriñ bi soxla te mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul ndax moom kat euh, xañ na lañ ca man a wax bari na lool waaye xataay waxtu yi mooy tax te sëñ Basiiru nett nañ ci moom lu bari ci Minanu Baal Xadim sëñ Lamine Diop Dagana am na lu mu jot a indi ci moom Irwaawu Nadim waaye la ko sëñ Moussa Ka wax ne ko yaa njëkk a jébbale sa xol loola di wax ju rëy rëy yaa njëkk a jébbale sa xol kon nag loolu di lu rëy ne ko fekkoon nga gaayee xor-xoral ñi ña lay taqal ñi setal yaa xal ngir mi ñuy doxe daan ne ko yaa xam sëriñ bi yaa xereñ xereñ nag day mel ne ay wolof la yoo xam ne ñi dégg wolof mën naa am danañ ci mën a def ak saraan daan ne ko bàjjo bi yaa xam sëriñ bi yaa xereñ dawa weranteeku sëriñ bàjjo bi yaa bari njariñ waane yàgg ngaa naxe am ngay ngërëm ba am dërëm foofu say dërëm jëndee ngërëm loo musa am tàbbal këram ay junni daal nga daan joxe daan ko jox nga ko adiyey gëléem yu safi ngurdu safi koom daan ko soldaar sax yaa joxe woon sa doom fàllilu faal am na pexe ca soldaar sa bi ñuy tànn ab taawam foofu la des ca ca ca ca France mm-hmm. kon kooku jox na Sëriñ Tuubaa léppam jox na ko alalam jox na ko ak njabootam jox na ko jëmmam jox na ko léppam waaye nag kamaatu diinu tuddaanu li arab yi naan loo leble loolu lañ lay fay loolu sëriñ Tuubaa da koo lebaloon yonent bi ndax sëriñ bi waxoon ne ne dammi wa ahli wa awlaadi fidaa u lahoo abdan xadiman lahoo muskaana lii sanada ndax la ca jiitu sax mooy mahat mahabat yal muxtaaru sayiduna hubbul maxaani wal na wal walada waaw doo ko wax dammi wa ahli wax ko ci fu baree baree bari nag la ko sëriñ Tuubaa maam Cheikh dog koo faye yàlla dog koo faye waaye nag loolu yónnente bi da koo lebal da ko da koo jëflanteeg sunu borom ndax yónnente bi yàlla da koo bëgg ba yëmale ko dara te te suñu borom bëgg gi mu ko bëgg da koo neex rek ndax du caay gi ne da koo defal loo xam ne mënu koo ñàkk yàlla yónnente bi defalu ko loo xam ne mënu koo ñàkk ndax yàlla euh, moom mooy ki nga xam ne moom ku ne man mën naa ñàkk ku ne te kenn mënu koo ñàkk waaye nag ci coobareem la bind yónnente bi ne moom lu ma bind moo ci gënal ba ba ba pare daal di wax ne lépp lu ma bind moo tax ba pare daal di koy tagg nag kon li ne ci moom lépp moo ko defal daa ne moom lu mu wax dëgg la ndax wa maa yantiqu anil hawa moom du waxee bànneexam yu baree bari mu wax ko ci yonente bi sëñ Tuubaa nag daal di jël yonente bi nag daal di koy dar euh, yëmaliwu koog dara jël bëccëgam jël guddeem jël léppam jox ko ko an ak a neexoon laal salaal salaam ma ma tëdd sama loxo sama lexu ndeyjoor bii mu jël tànkam bi dëgg ko ci koo ak bëgg mënu koo paase suñu blaat sax xam naa fu may tëjee mooy am na lu mu doon nettali ci bëgg sëñ Tuubaa bëgg yonente bi mm. neen dafa am bis këram gi ci njaareem ñu indilu sëriñ bi gura mm. biñ ko laajee biñ biñ laajee sëriñ bi ñu indi sëriñ bi gura fële ca njaareem biñ laajee sëriñ bi sëriñ bi euh, euh, ñu indi sëriñ bi fële gura ci njaareem bi bi mu laajee waa euh, ki ko indi loo ci jublu mu ne damaa dégg ñu ne bëgg nga ne nañ xool ci kër gi lu fiy góor nañ ko génn kenn dooma mandargaal lu len lenn lu dul bëgg yàlla akub yónenteem loolu nag la la la la yàlla faye yónente bi faye Sëriñ Tuubaa muy Cheikh Ibra Fall ndax Cheikh Ibra buñ dee wax buñ dee wax menn xel mooy maam Cheikh Ibrahima Fall waaw menn xel mooy maam Cheikh Ibrahima Fall moom dafa jàpp sëriñ bi yëmaloo koog dara yëmaloo koog dara dara dara ndax buñ jàngee ci sariya li ñuy wax ci wàllu julli ak woor ak natt asaka ak koy gunge yooyu sariya ñun ñun ñi ñëpp jàng nañ ku ne xam nga lañ ca wax waaye nag damay bañ ñu bari ñu ciy xuloo ab ustaas wala kenn di wax ne ku julliwul dañ laa war a rey walla wala ku wóorul lii moo aju ci yow ba tax na nga nga di ko mere wala ngay jëflante ak moom lu kooka lañ bind lay wax kooka lañ bind lay wax te dégg nga ba tàyyi ñu ne maam Cheikh euh, euh, sëñ Saali waxoon na ne moom ambulance la. ambulance waaw mm-hmm. kon nag loolu su fekkee ne am nga dégg dara kee la muy wax bu mu la naqari. ndax kee lañ bind lay wax moom sariyan lay wax de ku julliwut dañ daa war a muñal ñetti fan ñun ñëpp jàng nañ loolu sariyan lay wax ku wóorut am na lañ te wax ku nattul asaka ku ajuwul màkk yooyu sariyan wax na ci waaye maam sëñ Saliou maam li ci ci ci ci barki Dembo Ndiaye sëñ Saliou nee na sama baay Cheikh Ibra ambulance la ambulance nag ñun ñëpp xam nañ ne ab oto la ambulance ab oto la oto la boo xam ne nii fi mu doon nii bu jaaroon ci tëli bi di dem oto yëpp dañuy dañuy dañuy seere di ko may te moo ne seen moroomu oto la waaye daa am nuñ def ci biir ci daa am nuñ def ci moom wala nuñ ko jàppe nu wuuteek nañ jàppe seen moroomi oto ya des te benn tubaab bi liggéey oto bii moo liggéey bii xam naa li ma ci bëgg a wax day mel ne ab dégg-dégg bu soree soree sore lay doon. te bu ko neexee mu jaar ci sens interdit. sens interdit dana fa jaar jàll te ku toog kum romb da koy xajal mu jàll.